daal Birame Souleye dana daal ñu bari. ci immature ci immature ci manque de responsabilité ci ñeme yàlla ci dëgër fit ci dugg ci loo xamul ak ci bandi bandilu kilifa dafa am yoo war a jombal sa bopp cest à te ñoom problème bu am waxal leen ko yóbbee nag bari nañ wax amuñ xam-xam ñeme nañ yàlla am nañ fit non c'est c'est grave li parce que boo xoolee c'est comme le cas de à l'époque mm-hmm. un ancien ministre du budget un inspecteur du trésor de formation un ancien premier ministre du Sénégal mhm. avec une carrière internationale moom sax au moins il a insinué nga ne président dafa jox mais président ku ko xam ne du jël xaar Sénégal di ko jox te di ko ah soxla defi alors mais mais loolu sax tane na bien que du yoon mm. campagne internationale bi ñu def di jabaru Sénégal di yàq deru Sénégal loolu pour lan la. d' accord alors monsieur le ministre en quelques secondes ci responsabilité. oui jàng droit jaar université jiite un groupe parlementaire à l' assemblée nationale. am liggéey ko doy sëkk ci li ñu ko dënk en tant que député askan wi nga taxaw di wax ay waxu dof waxu xale wax yoo xam ne amul responsabilité amul maturité amul intelligence ti crée un incident diplomatique. ambassadeur bu Sénégal bi nekk Côte d'Ivoire ñu koy euh, ñu koy ñu koy euh, ñu koy convoqué. même les Sénégalais qui vivent là-bas. mais c' est très grave. ba pare ba pare li mu wax c' est grave. Mm-hmm. président Macky Sall yéen ñii candidats yi lim ay tur. seytaane mënut a weesu loolu quoi dugg ci parti jaabur di lim ay tur diw ak diw moytu leen lekk diw. parce que mun na mm-hmm. leen assassiner comme li diw def donc non seulement il a accusé le président du Sénégal mais il a accusé le président c'est très grave donc li ñuy wax muy ñun muy journaliste muy chroniqueur muy homme politique nañ koy xoolaat d'accord ñuy wax lu ñu wóor di ñuy wax ñu leer mhm. c'est important turandoo ma bàyyi la ak euh,